mbokki ancienne piste je suis sama wax promotion la len indil fal président am ñaari président am ñaari président fal président am président fal président am président fal président am président président piste maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant di ci jiital président Pape Souley mi toog nii mu yore trois trois AP di ci jiital tamit sama xarit sama mbokku taalibe Bamba Niang mi toog di nuyu président Tahir Fall Tanor Fall pardon di nuyu it ñoom Modou Ciss ñi nga xam ne ñoo ñu seet si woon ak ah sama jàmbaar ji ci ginnaaw di Idi Konte damaa bëgg ngeen tàccul ma ko. jërëjëf Sonko président président Diomaye président président Diomaye président Diomaye. président Diomaye. président Diomaye. président mbokki ancienne piste yi mbokki artisan yi. li ko dalee ci mécanicien ba ci électricien jaar ci tôlier ak képp koo xam ne yaa ngi liggéey ci mbiru oto président Diomaye Faye mi ngi lay nuyu. koy fay koy fay. démb rek laa mujj échanger moom ci message ne ko suba damay dem ancienne piste mu ne ma soo demee dimbali ma nga dalalal ma xelu ñooñu ne leen dinañu jubbi ci seen mbir. li leen dal dafa metti ndaxte ay junni père de famille ñoo xam ni ku ci yaa ngi joxe dépense te ku yaa ngi dundal lu ma fukki nit ñooñu boo leen bëggee xañ liggéey sa xol dafa bon sa xol baaxul te li gën ci askan wi mooy ñu jële la fi te gëm naa ni au soir du 24 mars yéen ñii di ngeen fi jële ñii leen teg lii leen teg président Diomaye président Diomaye président Diomaye président bu ñu yemoon rek ci dal seen kaw yéen bu ngeen amul woon njëriñ ci dëkk bi sax muy problème waaye kenn da leen a ëppul njëriñ ci dëkk bi fii ci Ndakaaru fii ci Sénégal gisuma liggéeykat bu leen ëpp njëriñ ci réew mi ku fi sa oto paan

waaye incha allah la cité de Lodobodul dinaa nekk ci ñuy gën a xeex pour mu am fii ci Ndakaaru ndaxte nag damaa bëgg sama oto bu paanee ñu ñu dépaneel ma ko dépaneel ma ko dans des conditions normales dépaneel ma ko ci atelier atelier bu moderne incha allah waxtaan woowu yéen lañ ci toogal waxtaanal ci seen représentant yi xel yu rafet yu ñu am keroog ba may toog di wax ak ñoom dañoo dalal sama xel

man gëm na ni duñu gëna goré président Ousmane Sonko dafa jox dundam yépp Sénégal président Ousmane Sonko limu ñëk ñak moy ñàkk liggéeyam pour Sénégal ñu né dëpp na way mu ñak vie privée pour Sénégal bis bu dëpp ngeen dégg xass bu ko doon xass awraam nek ci biti tous les jours bu lépp mu nang ko ndax Sénégal président Ousmane Sonko ñak liberté ndax Sénégal wa koku buñu joxal nit

loolu nag du njëriñu artisan yi kese njëriñu Sénégal yëpp la ndaxte Sénégal dafa réew moo xam ne fii may wax ak dafa waroon a nekk réew mu ñuy joxoon naan c'est pays les plus avancés du monde waxuma pays les plus avancés d'Afrique de addina bi dañu waroon ma joxañ Sénégal ndax yàlla dafa def Sénégal lu ne askan wi yàlla may Sénégal day askan woo xam ni wenn la ci àdduna waa ndax mos ngeen fee dégg ay xeet yuy xeex ndax mos ngeen fee dégg ay diine yuy xeex ndax mos ngeen fee dégg coup d'état loolu Sénégal rek la ko yàlla may ci addina bi. Um. Sénégal mooy réew moo xam ne première ressource am mooy askanam. Sénégal mooy réew moo xam ni deuxième ressource tam mooy jeune jeunesse bii ngeen nekk yéen senegal mooy réew moo xam ni yàlla lu ne la fi def muy mbay di ressource naturelle amul lenn loo xam ne am na réew mu ko bu ko ëppale Sénégal loolu nag bu ñu amee ndaw lu bëgg réewam am xam-xam dénk ko alalu réew mi te it muy ndaw loo xam ne loxoom dafa set def na fukki at juróom impôt kenn mënu koo wax ne ko sàcc nga juróomi dërëm ñu nag ñii ñu jàkkaar lool ñii ñu jàkkaar lool bu ñu ñemee nañu def seen déclaration de patrimoine ñooñu ñemewu ñoo def déclaration de patrimoine te it heureusement que kenn du leen fal waaye bu ñu leen faloon sax wóor na ma ni dinañu làq lu ëpp genn wàll li ñu am ci alal ndax ndaxte ñemewu ñoo taxaw ci sénégalais yi naan leen lii laa am ci alal en tant que fonctionnaire Bassirou Diomaye Faye dina def déclaration de patrimoine am incha allah di ngeen gis lan la am ci ku def lu ëpp fukki at ak juróom ci impôt na ko soo Sonko defee woon xanaa fàttewu leen ni Ousmane ba ñu ko rajee impôt day ba ñu demee ci kontam fekkuñu fa lu ëpp deux cent onze mille francs kontam kenn fekku fa lu ëpp deux cent onze mille francs kooku moo ñemee taxaw ne man en tant que haut fonctionnaire ku gis fukki dërëm yu ma mës a luubal na ko wax ñu dugal ma ci kaso bi toj ma